Samba mu jox la ndigal sëñ Amdi Fall moom si mu di mbenn moom si Ibra bu fa si am na njaboot yëpp nag saytul ko liggéey boobu muy dëkk bi di Touba loolu daal mooy ndigal yi ñu ne ko fàttali. ànd ko njabootu sëñ Touba ji ànd ko seexu yoonu murid lépp waxtaan bi te ñoom ba déggoo ca ak ñoom kon lii war ba ji sëñ bi nee nañ ko jox dëkk bi. lépp lu Serigne Touba bëgg ci dëkkam bii maami Serigne Amdi Fall Modou Mbène nee na dina am yàlla fi yàgg loo tànn ci yër tey jii nag Serigne Amdi Fall Modou Mbène daa jox ndigal mboolem Baye Fall yi ak seen Moussa Fall ak mboolem seen waajur ak taalibe yi ñoom ñëpp ñu àndandoo war corniche bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ànd ko kër sëñ Touba ànd ko Cheikh yoonu Mouride yëpp fenn fu ci nekk sëñ Amady Fara yónnee na fa ndaw waxtaan ak njaboot ga waxtaan ak kilifa yëpp ci baatu ndigal bi di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké bëgg loolu am kon na ko ci ñëpp dimbali ba li bëgg rek moo am li sëriñ bi bëgg nag moo gën ci ñun lépp lu sëriñ Touba bëggul ci dëkkam bi doxal ilaha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 ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fekk ba Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda Fall yàlla fi yàgg lool ñoom nekk nee na na nga waxtaan ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru fukki fan ak ñett ci tubaab Cheikh Falilou Fall moom sëñ Modou Amita juk ànd ak taalibe yi ak Cheikh Moussa Fall Falilou ak mboolem waajuram yi di jottali ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di wax ne ñun ñëpp ñoo bokk na ko ñëpp koy fàttali police gendarmerie ñëpp nañ boose jàppale sëriñ bi ci ndigal li ba li sëriñ bi bëgg rek loolu am li sëriñ bi bëgg na loolu am police gendarmerie koo xam ne takk den ci nekk ci dëkk bi yaag Baay Faal yéen a ànd liggéey bii li sëriñ bi bëggul ci dëkk bi nan fexe ba mu génn dëkk bi kon sëriñ bi a ngi koy fàttali ñëpp koo xam ne sa yaakaar ci Seex Ibra la nekk koo xam ne sa yaakaar ci Sëriñ Tuubaa la nekk moo digle bàyyil xel baatum ndigal bi football mees politique sàcc damier sàngara lu mën a doon sëñ koy tere sëñ mu taxaanee nañ ko bàyyi waa góor a murit waa góor a Baay Faal waa góor a murit waa góor a Faal waa góor a murit waa góor a Baay Faal ndigal jug la bàyyi ko fa mu daan bàyyi ko waaye Faal kenn desul sëriñ Amdi Xadi Faal sëriñ am di faal bëgg faawu day am bëgg sëriñ Tuubaa la te Cheikh Ibra Fall mosu koo dégg te jëfewu ko sëñ am di ne la bëgg sëriñ Tuubaa gi Cheikh Ibra Fall mosu koo dégg te jëfewu ko doxal sëñ daam ne nan dem ana waa bon ak jëf ju bon ak coow lu bon sëriñ bi da koy aaye ci dëkk bi sëriñ Falilou Fall jëwriñu sëriñ Modou Amin Taw jabootu Cheikh Ibrahima Fall ñëpp a ngi fi ak seex yi daa yaram woo góor waay football politique wax ju bon ak jëf ju bon ak coow ju bon sëriñ bi da koy aaye ci dëkk bi teg nañ ko ci loxol Baye Fall woo góor waay ku ko dégg jot nga ko sa morom. Cheikhouna Serigne Saliou Fatli war Baay Touba teg nañ ko ci sëñ bi te déggal sëñ bi fas yéene jëfe ndigalam mooy lan dëkk bii di Touba sëriñ bi daal dafay tere yii lu mel ni bëlët lu mel ni politique njaayum póon njaayum sàndara tux naan gees xeex xuloo jamantay paaka yàq sàcc jëli fi jàmbur lépp daal borom Touba xam bëgg ko ci dëkkam bii kon nag képp koo xam ni yaa ngi lay digal ñëpp nee na waaw jàppale Serigne Touba bëgg ci dëkk bi Cheikh Ibra Fall ko man maami Serigne Cheikh Fall na maa ko man dinaa ko def may sa digg Touba Fall nee na maa ko def maami Serigne Cheikh Fall borom ndigal nee na maa ko daal nan ko bàyyi xam ne Cheikhul Khadim kenn du moom kenn du borom Touba Khadim Rasul kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi suñu yaa ngi garage daaru yaa ngi garage bi nga xam ni boo jëmee kër Thierno kër Cheikh Ibrahima Faati mbokkum Cheikh Ibrahima nag fii ngay jaar kon kaddu gaa ngi nii. waaw Gore Gore Ndiaye naan naan daa fekk sëñ bi woo ma ci kanam waaye da nga am baat boo wax da ngaa wax ni fii mooy garage daaru waaye daaru gu nekk am na ci Touba daaru gu nekk sëñ Touba bind na ko waaye dafa am ñoo xam ne doo ñàkk xam nan ko xam ko doon wax nan ko bàyyi fii ni buntu pëccëm la fii buntu texe la doxul jërëjëf Fallé nga Cheikh Fallou Cheikh Fallou jërëjëf bu ngeen xoolee nii di ngeen xam ni ñoom amuñu am jot de dox leen dox leen dox leen buntu daaru rompe maam Thierno Cheikh Ibrahima Fati bàyyi seen xataab bàyyi seen si weeru bàyyi seen am si am dañeen fii daal mooy buntu daaru nekkatul ba dëgg bis ni tey talaata tey ñaar fukk ak ñeent Njaay ndaanaan waa gis nga bi ñu wënde soldaar si nga xam ne mooy soldaaru baatin gi waaye saa yi saa ngi nii taxaw sëñ baa ngi leen di ñaanal na garaat yi yokk jàpp leen ko jëlee kam bii li mu yéen la ci yaakaar ak Baye Fall yi nan ko ci jàppale dëkk bu toll nii pour ko teg ci sa loxo li nga bëgg lépp lay am sëñ baa ngi leen di ñaanal jàmm di leen sant di leen gërëm ba yëg ko barke Baye Fall yàgg te wér fii mooy Kara Soudarou soo bàyyi koo Daaru Musi ñu ni daa wàcc ab liggéey boo duggee fii Cheikh Fall nee na dugg ngaa jara sëñ daam fii dañ leen di waajal waaye nag Cheikh Moussa Fall di jëluñu Cheikh Fall Fall moom sëñ mu rëminta sama ju baax yii ngeen di seen kilifa Cheikh Aliou Fall moom sëñ Modou Mbène daa wax ni paaka ba léegi mënoo koo gis kon koo xam ni da ngaa nekk fii da nga fii kële sëriñ bi bëgg nekk ko ci bu ñu ci kaw doonu gis loolu sëñ Fall waxoon ku nekk fii ci nekkoon fi li sëñ bi bëgg waajal ñëpp ci sa kaw ñëpp ci sa kaw na ñëpp ay déggee ku dégg loolu na dégg loolu na bàyyi xel ba nan bàyyi xel barab bi ak borom barab bi doxal doxal nan bàyyi xel barab bi bi fii nan bàyyi xel Sall bee bis rëbb mu xelli nga génn taal sa kilim yaakaar nga ne borom Cheikh Ibra Fall nga fi fii bi mu tàngee fii bi mu nëbee maam Serigne Amdi Fall Mourou Mbène moom rek nga fi jaaroon ñu si ma ñëw di ko xàllal tëb na leen tey nag buñ ci doon fanaan duñ tëdd ci ab lal buñ ci dee yendu duñ toog ci ak basang c'est fii ñu sellal moom sell Fary Ndiaye yaa ngi ci biir taal bi baasal faala ku fi nekk ni yaa ñuy woo wala bu ñuy yoree jàpp fii ñu sellal du ak dara dara gaa ci biir sëriñ bi nag daa bëgg wala si am nit fulla fi jaay képp ku ko fi yeew bu teg sëriñ daal nee na dinañ jël lépp yóbbu yëpp ko sëriñ bi ñett ñëpp nag fii du ak dara corniche bi sëñ bi nee na du ak dara na nekk ci biir dara nii wala ñu seet yeneen dara waaye yéen daal jaaykati xar yi yéen jaay ñu jox ko sëñ Tuubaa na ngeen ko sëñ Moustapha si la jërëjëf bokk noo ko dégg na ñu li nga dégg xam ni bàyyi ko ñu sëñ Tuba Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ni ñëpp dañu naan yàlla ko yàlla baax na li nga wax te yow ñu ko mën a taal man ci wala fa wax bi nga te liggéey nag dox na ci ak mat fulla ak fayda ay yéene ñëpp jàmm am na ci dëgg ndigal li nga xam ni Baye Fall yi njaboot Sara Fall. si Mountakha Mbacké jox joxe baa ngi nii force de l'ordre Serigne baa ngi nii ñoom ñëpp ànd loo leen jug ànd ak capitaine bi généralu Cheikh Ibrahima bi am di yaay Modou Mbenda ko Serigne la li see Muntaxa Mbàkke bëgg lu mu sant aw tur day amu sant nee na ak bëggam la am Cheikh Ibra Fall nee na ko sag bëgg waaw la sant kon la ñëpp ne waaw aw tur day amul sant Lamine Camara aw tur day amul aw turam Cheikh Ibra Fall aw santam moo di waaw jaraama Cheikh ñi nga ànd ak ñun jaarama Cheikh Ibra Fall sëriñ bi fan la war may tuub teg ko ci loxol Baay Faal yi sëriñ bi fan la war may tuubaat ah Modou Mbène Badiane koo xam war may Touba ci dëkk bii teg nañ ko ci loxo jëwriñu Cheikh Ibra Fall Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Benn Fall na fi yàgg lool tànn ko la yàgg kër maamam la Serigne bi nee na war may borom xel fi la ñuy toll nii di jottali baatum ndigal waaw góor bu bàyyi ko kër sëñ Tuubaa ñëw na muy war may Tuuba ci loxo jëruñu Cheikh Ibra Fall war may Tuuba teg na ko ci loxo jëruñu Cheikh bi nee na war teg na ko ci loxo jëriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñun waajal ko day bañ bu suba jàmm bu fekk lii lépp dañ ko dindi woon de day dañ ni door ak jamoñ suñu ne ngeen def lu ko def ci marché yi ak syndicat yi na mangu ñu dem marché ñu yëri ñu dem marché mangu ñu dem syndicat la la la la la la Cheikh Fall mii ak Cheikh Fall yi ginnaaw xëy na tey jii ci ndigalu sëriñ bi ba jëfe ndigal li ni ko sëriñ bi bëgge woon ba dajawaat fii dafa am baat bu ne ci suñu kanam te ñun ñëpp ñu bokk ko ca kenn ku nekk la ci sa pas-pas ak sa yéene mooy ni ko sëriñ bi bëgge nga man ko ba defee ko noonu sëriñ bi sëriñ bi bëggoon rek bu ñu ñaanalee ba xewul ba noppi ñu dem waajali loola dégluwaat nag baat bi jàllee nañ jëm ci. su jàllee nag. bernew ji ma waaw. su mbooloo mi teewee. mooy wax ci turu sëñ Fadilou. sëñ Fadilou. waxul waxul. ci turu kilifaam rek lay wax. nee na ko amul kilifa nag. jëw ñoom ñeneen. amul. ku nanguwul kilifa rek moo am faal. moom day nu mën a kilifaam yëpp yilif ko nee kon nag faaw muy wax ci seen baat rek lay mën a waxe faal xam ngeen ne xëyum tey nii sama nijaay sama nijaay si Aliou Fall waxal sa kilifa yu baax yi nga toogal ñi leen nee kàddu yi ñuy jottali na ni du ndam ndax ku nekk mën na ko fi ngeen jaar muy ndigal ci barabu Serigne Touba bii. def ko defi lu mel nii ngeen ko defee. bi. xam ni waxuma la dëkk bi. waxuma réew mi. waaye àdduna sépp yëg ko. suñ xëyum tey nii. tasaaroo na ñëpp ñu dal mi ngi dox def yoonam rek. nee na loolu nag ku ko def. tamit loo war a def. nettali kooku fa mu jaar. nettali kooku fa mu jaar. loolu daal ne mën ku ne mën na ko. ah li ñu jublu wax rek mooy. li ñu jublu wax rek mooy. ah bëggoon moom. ka bëggoon. di jëriñu seen tubaab yi. bëggul suñu borom yoo bëggul ko tax ñu bind lépp moom la bëgg. bëggul Sëriñ Tuubaa ak Seex Ibra Faal la bëgg. bëgg ñu baax ñëpp la bëgg rek. muy jox war ma. muy jox war ma dëkkub nee ko am këru texe gu toll nii. ñu sàkku la ko. war may adduna jë. war ak defaru sayid. ak defaru kenn waru la ko gàddul. kenn waru la ko a gàddul sa bopp. loolu moo waral. nee loolu moo waral. jëwriñ Sëñ Tuubaa ji digal jëwriñu Seex Ibra Faal ji lii. lépp ndigal ko nag ndigal ko. nee mu digal ko rek. njabootu Seex Ibra Faal gi. waaye mu am bànneex bu ci nekk mu ci nekk ndax mag bu rëy gi ci def ndax mboolem bu digg sëñ Tuwaay ak jëw ñi kër sëñ Tuwaay nee na yëpp nee na fu yi taxaw nañ fa ndax bëgg ndax bëgg bëgg a bokk moom baatu ndigal bi nee loolu mu di ndam lu ñu ngi dellu di ñaan yàlla suñu borom jëw riñu sëriñ Tuubaa ji yàlla na fi gën a jëwriñu Cheikh Nafaal ji yàlla fi gën a yàgg nee ñun ñii nga xam ne ñooy jëwriñ yi nee suñ jëwriñ yi ñoom it ñun ñii yàlla fi gën a yàgg rek nee loolu sëñ daam solo sañees na koo ñaan loolu nag dañ koy ñaan ñun ñëpp ci turu sëñ Falilou Fall nee kon loolu ci turu sëñ Falilou Fall la ko waxee nee na koo def muy jëwriñam. nee moom it li muy seen jëwriñ. saa suñ jëfee ba wàcc. war naa mën a wax a ñoom. ginnaaw def nañ ak moom. defal ko sëriñ bi. naa waxal sëriñ bi ba ñëpp dégg ko rek. nee loolu waral muy yëkkati ay kàddu. jërëjëf Fall. waaw. ma leen di sant rek. jàpp ne cant sëriñ ak cant mbooloo yi murid yi nga xam ne. ñoom la ñu àndal ci ndigal bi dañu tàmbali woon ko rek dara ba na àggalee liggéeyu gaar ba ba sëriñ bi ñëwee ñu jot ay cant ak ngërëm yu bàyyi ko Cheikh Moustapha boo waxoon ni sëriñ bi boole na si ndigal bi lii nga xam ne moom ngeen doon liggéey ngeen ngeen saytu ko di sàmm ba li ngeen fi jëlee mu ànd si sëñ Jili ak njabootu Cheikh Ibra Fall gépp mooy suñu kër yëpp. nga xam ne dañu ko defoon dañu ko defoon ay ay ay ay xaaj. boole ñu ñaari buntu kër yu ne ñu boole leen ak benn seex wala ñaari seex ak ñenn si taalibe yi jox leen genn wet boo xam ne ñoom waxtu bu ñu xëyee kenn ku ne wet dañ la jox da ngay xëy su ko defee ku àggal te mën a dimbali ji wala nga jàppale ji sa sa morom nga def ko. soo ko mënul di nu daje fi benn barab sëriñ bi ñaanal mu yeewu liggéey boobu nag dafa mel ne loolu sëriñ Moussa wax liggéey bi des koo yeesal dolliwaat ko waaye liggéey bi moom nag jëkk muy nu ko tàmbalee woon it te mu mel ne rafet na te jub na ndax boobaag léegi sëriñ baa ngi si defal taw fii li li li ñu si sëñ bi bëgg ni nga ko si am loolaat mooy mooy mooy jotaay bii rek liggéey bii nu taxaw tey jii nag moom kenn ku ne xam ne day mel ne li naan pàccetu sëriñ bi mënut woon a ñàkk ndax ndax ni ko suñu saafara moom àgg na fépp te gannaaw sëriñ bi dafa woote yeesalaat ndigal si am mu si yokkaat lu si dolli loolu it war na noo yëngu ba ñëpp xam ne keroog bu baatum ndigal bi rotee rek ñun si nekk te dootuñu si jóg ku bi am na mu ko bëggee loolee moom la sëñ bi doon firndeel léegi kàddu yooyu ñu si ñu ngi sant sëriñ Fall bu bi ñu yi nga xam ne di suñuy wajur wax bu nu bu nu wootee ci ndigalu sëriñ bi ñoom kenn du leen fi jiitu ñu ànd ak ñoom te xam nañ ni ñu ngi si ndigal yoo xam ne yu mel ni yii rek ndax ki joxe ndigal yooyu moo joxe ndigal yooyu waaye waxtu bu sëriñ bi wootee di jënd seere faat bi ñoom ñëpp ñu bàyyi ba mu jàpp ñu ànd ak sëriñ bi xam ne alal bi seen alal la ndigal moom fu mu ko doon mu ko doon fu mu kenn du leen séddale li li si li si jaww seen wàll li si kenn ku leen rek moom lañ sant loolu leen si sant bu baax di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ne suñu kanam nga xam ne duñ noppalu bi bëgg ñu defal ko ko nañ ñaan boobu man nopp naa si ñaan ko waaye ñoom ñii fi nga xam ne ñu toog doogal bi sëriñ bi di fi jëmm sëriñ bi ah na ñaanal sëñ Fallou bi sëñ Moustapha ak ñoom ñi nga xam ne ñu ngi seen ginnaaw ànd ak ñoom liggéey boobu ñu ñaanal ma ndax ñun ñu wér ñun ñu bëgg mooy nañ wér rek nañ wér di nekk ndax bu ñu wéree li def ndax suñu bakkan yi lañ ci jaayante moom li sëriñ bëgg dañ koy def kon nag nañ wér nañ am doole nañ am kàttan rek ba ma defoon loolu liggéey bi nag ni ko sëriñ bi waxee fii fii fii tabaski dafa jege te xam naa xëyaat bi dina doon xam ne sax doon te ñun ñii nga xam ne commission boobu ñu tàmbali woon keroog am na léegi bu ñu nekkoon di ko dox te àggagul mooy liggéey boobu ñu doon wër njabootu sëñ Tuubaa bi ak seex seex sëñ Tuubaa yi ak daayira yu mag yi ak euh, chef de quartier yi ak délégué de yi ñi nga xam ne ñëpp sëriñ bi daa bëggoon ñu tappal leen ci liggéey bi ngir fa nekk ñoom ñu mën faa doon ay ay jëwriñ yoo xam ne da dañuy yor dañuy jàllale baatu sëriñ liggéey boobu tey jii rek ñu ngi war a gontu dem Daaru Muxti bi soobu yàlla xam naa ni bu ñu jógee fii rek dañuy waaj dem Daaru Muxti waaw suñu si jógee wéyal liggéey ba rek ba booba ndigal lu fi amaat si diggante dañ mu fexe ñëpp yëpp ni ñëpp yëge ndigal bi rek waaw ndax lii kat sëñ Fall bi yegg si na te yeesaat na war nañoo jëm ba ñëpp xam na

moo waral suñu xëyu tey mii di talaata sëñ bi ne kon tey jii nañ xëy kon nag waral Touba jot leen ay nuyoo ak i cant ak i ngërëm ci liggéey bii sëñ Mountakha Mbacké joxe ten façon koo ànd moom loolee moom la sëñ Oumy Fall doon yëgle nee bëggoon nag ñëpp bëgg ko yëg ndigal lii egsi ci moom nee na moom du sëñ Touba gi ñoo bokk ak njabootu moom Cheikh Ibrahima Fall kon ku sa yaakaar ne ci Cheikh Ibrahima Fall ndigal laa ngi nii nee na doon doon yëglu rek ak di nuyoo ak di wane ni ndigal ne seen Baye Fall yi ci loxoom lañ ko teg nee mu bëgg ko ànd ñëpp la si Baye Fall si ñu nee jërë ngeen liggéey bi ci kanam muy liggéeyu Cheikh Ibrahima Fall bu mu fi bàyyi muy liggéeyu tabaski yi. nee ñu ngi koy ñaan te dara sangam ba maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ ma sëriñ Touba léeg-léeg leen na lépp jàppale nee na muy xar yi muy xartum yi muy wér muy xaalis bi xar xartum wér ak xaalis xar xartum wér ak xaalis nee yàlla lépp waaw njëga loolu baax na xar xartum wér ak xaalis waaw waaw nee kon ba nu ko sëriñ bi bëggee nee nan ko mënee noonu nee kon nag lii moom am lu la woon de ak yëg la woon it kon ginnaaw yëg lu leen nuyoo wër bay si fii nanu sëriñ bi ñaanal faal bun xewloo xewal yi dem waajal ci suñu kanam tabaski waaye nee yow ginnaaw bu tabaskee dinañ fas yéene ñëwaat nag ci liggéey bi nee na ba lépp set bi leer nañ ñi nee jërë ngeen jëf. tàllal seen loxo tàllal leen seen loxo nag kon fu waay nekk tàllal sa amin amin amin bokk amin ñun